xam naa ne li may tàmbalee mooy comme baatu politique xam nga day xaw nuru lu paradoxal xam ah. nga ne sëñ Touba ak politique mhm. wala nga ne la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mhm. mais man bi may jàng ba war a bind sama mémoire master 1 parce que dañ dañ ma joxoon ñetti téere benn bi mi ngi tuddoon le prince mhm. ku ñu wax Guy de Balzac bind ko beneen bi tudd le monarque ku ñu wax François Sénon benn bi tudd la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte mhm. ku ñu wax Bossuet ab abbé la mu bind téere boobu téere boobu nag bi ma ko lire moom ma gën a marqué ci ñett yooyu mhm. ma ne man bis dina ñëw ma ne ma bind la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mhm. bi ma koy wax sama professeur sax dafa ma pourquoi pas <laughs> léegi boo demee si li ñu wax introduction à la politique boo xamante bi ne ku ñu wax Philippe Beneteau moo ko bind wax ne dafa wax ne politique euh, am na ñaari conception hmm. li ñu wax conception classique ak conception moderne conception classique mooy mooy depuis antiquité di hmm. Platon Aristote Socrate ñoom euh, ba ci la Renaissance hmm. à partir de Machiavel li jiitu loolu lépp dañu concevoir la politique comme un art la politique dañ ko jàppee comme art ñu ne lan mooy art mooy dama ne parce que politique dafa am lu ñu wax finalité. Mm-hmm. ñu ne lu tax muy finalité mu ne la finalité de la politique conçue comme un art et de permettre l'être humain de réaliser sa nature. Mm-hmm. maanaam politique bi nga xamante bi ne dañ ko doon théoriser. Mm-hmm. di ko pratiquer tàmbalee ko par exemple boo demee Philippe Beleto moom da ko tàmbalee ci antiquité. Arist Socrate donte bindul mais Platon surtout mm. la République de Platon mm. ba ci Renaissance foofu la yam Renaissance rek la politique ca nekk comme une technique mm-hmm. léegi ñu ne politique bu njëkk bi dañ ko conçu comme un art pour may doomu aadama nature bi ko yàlla binde mu réaliser ko mm-hmm. ñu ne doomu aadama naka la ko yàlla binde mu ñu ne d'abord nit l'être humain est un être social mm-hmm. ensuite est un être raisonnable léegi nag ñu ne faw ñu concevoir théoriser ak tamit mettre ay cités yoo xamante bi ne ñaari nature yooyu noonu muy la sociabilité de l'être humain dina mën a développer ci ci environnement boo xam ne si favorable mm. ak tamit li nga xam ne l'être humain et un être raisonnable parce que ne dañu wax ne la raison est liée au bien maanaam mooy nit normalement bu fekkee ne amul lu troubler raison lu baax la war a def waaw lu baax la war a def warul def lu bon moo tax ñu ne politique boobu ñaari finalité boobu la amoon may nit mu maanaam mu réaliser sa nature am épanouissement social dund bi nga xamante ni noonu la noonu la war a dundee parce que nit comme ni ko Aristote waxee l'homme est un animal politique maanaam nit mënul dund lu dul avec ses semblables dans une société léegi nag kon faaw ñu defal société boo xamante bi ne sa caractère social boobu noonu sa sociabilité dina ko mën a maanaam épanouir li nga xamante bi mooy le bien timide mu mën a fexe ba lu baax li mu war a def environnement bi mu nekk ak tamit théorie bi ñu koy jox maanaam mu nekk loo xam ne da koy favoriser mais à de Machiavel nag la politique est conçue comme une technique maanaam la politique n'est plus comme comme un art une technique technique boo xamante bi ne finalité bi nit ki koy def moo ko koy jox mais amatul finalité maanaam damay dugg ci politique parce que dama bëgg a conquérir le pouvoir wala damay dugg ci politique parce que dama bëgg a conserver le pouvoir politique parce que dama bëgg am alal wala nangam-nangam mais conquête du pouvoir Machiavel moo tax boo liiree le prince bu Machiavel surtout le chapitre 18 chapitre 18 bi nga xam ne dañuy wax ne moom mooy le le quintessence du machia du machiavélisme mm-hmm. day wax ne maanaam nit bi dafa war a agir agir en bête tout mm-hmm. autant qu'en homme maanaam mm-hmm. le le prince aujourd'hui on di le politicien doit agir selon Machiavel en nom qu'en bête mu ne bu fekkee ne Euh, mu jël benn symbole li ñuy wax euh, le mythe de de de de de de de de d'Achille et Siron nga xam ne benn benn benn animal la boo xam ne dafa am moitié nit moitié fas. Mm-hmm. léegi mu ne bu nit ki politicien bi buy jël animal ñaari animal la war a jël mooy le lion et euh, le renard. le, mhm. le lion pour faire peur aux gens. le renard pour euh, en tout cas détourner les pièges. et et <laughs> mais loolu lépp da ngay xool ne moom génn na ci sens bu njëkk bi. nga xam ne moom moom daal pexeeg xalaat ak jaay doole rek lay lay teg loolu nag depuis la renaissance dañuy wax ne politique sens bu la jël. mais man nag boo jëlee ñun sens bu njëkk bi lañ jël mooy la politique conçue comme un art. Mm. am sëriñ bi day wax pour nit ki ni ko yàlla bindee nga xam ne dafa war a dund socialement am épanouissement. ñu kereel ko benn environnement boo xamante bi loolu day favorable ak nature am mhm. ba pare tamit sa sa spiritualité tamit du ko ñàkk mhm. ba pare tamit da koy da koy da pratiquer am mhm. diine même boo jëlee sax euh, quelqu'un comme Rousseau Jean-Jacques Rousseau ci le contrat social chapitre bu mujj bi ci religion lay wax wane ne euh, nit ñi mënuñu dund sans religion bari na ñu bëri am nañ position boobu lañ amee tey boo jëlee ku mel ni Platon nga xam ne boo bindee la boo jëlee la République de Platon Platon dafa jël ci la le livre de benn benn benn mythe lu ñuy wax mythe de Gygès. Mm-hmm. mu ne benn sàmmukat la woon boo xamante bi ne da doon sàmmal buur bi ba mu yàgg mu mu nekk ci àll bi muy taw mu dugg ci benn grotte di làqatu taw bi mu foor foofu benn jaaro mais jaaro bi dafa am magie bu nekk si jaaro bi mooy ne jaaro bi bu wëlbatee li ñuy wax bopp jaaro bi téton jaaro bi euh, kenn du ko gis mais mooy gis nit ñi. Mm-hmm. léegi nag bu mu demee ba am conscience ci pouvoir boobu noonu dañu wax ne dafa dem automatiquement rey buur bi jël soxnaam daal di nekk góor. Mhm. ñu ne kon faw ñu interpréter loolu lu tax loolu mu ne parce que le pouvoir bi mu amee moo tax pouvoir bi moom moom muur bëtam ni mu muuree bëtu ñeneen ñi ba gisuñu ko moom noonu la mu muuree bëtam nga xam ne moom loolu da koy da koy da koy nëbbu bëtam ba bu muy dem di rey buur bi di jël place am moom gisul comme un assassin quelqu'un qui met qui, qui commet un coup d'état mais quelqu'un qui a le pouvoir de d'enfreindre les lois sociales. Mhm. Mhm. mu ne kon. bu fekkee ne nit ñi li ëpp si ñoom mënuñu leen tegal kenn ku ñu tegal police si sa wet wala gendarme wala si li ñu war def mooy si ñoom ñu def la piété si ñoom maanaam ñu fexe ba mm-hmm. ñu am diina boo xamante bi ne même su fekkee wéet nga ne man mën na maa def fii loo xam ne dañ koy tere moo xam loi Sénégal wala et wala diine te kenn du ma gis am na lu leneen lu loo xam ne moom ngay bàyyi xel ba ba ba ba doo ko def mu ne mm-hmm. loolu mënul ñàkk ci organisation sociale sinon képp ku am pouvoir rek Euh, règle sociale yi ñu teg da nga koy da nga koy enfreindre mhm. loolu moo tax même si alxuraanul karim boo gisee yàlla bi mu wax ne dañu jox Daawuda nguur euh, le roi David maanaam dañu wax ne wa at wa ataxlahul mulka wal xikmata dañ ko jox dañ ko jox nguur mais ak sagesse. Mhm. parce que nguur dafay ànd ak sagesse. Mhm. Euh, on lui a donné le pouvoir et la sagesse. et la sagesse boo amul sagesse boo amee pouvoir te amoo day kii léegi nag moo tax politique bi loolu la bëggoon njëkk a ñu wane ne. Euh, politique bi mooy ci sens bu njëkk bi maanaam sëriñ bi dafa bëggoon ñëw teg tabax société boo xamante bi ne nit ki li mu soxla lépp ci wàllum matière ci wàllum dund pour que sa yaram ndax nit ñaari matière la ruux ak yaram mhm. si matière boobu noonu li soxla lépp ci wàllum lekk naan lépp da ko ci kii boo jëlee tey mel ni Matlabul Fawzayni nga xam ne souvent dañuy wax ne mooy projet société boo xam ni mhm. sëñ bi gën na ci définir kii bi mhm. sëñ bi da ci ñaan dëkk bu am ndox mu neex mhm. dëkk bu commerce am économie dëkk bu nekk dëkku xam-xam dëkku même dëkku méditation dëkk lépp loo xam ni da koy soxla mais tamit li nga xam ne moom mooy essence bi nag muy wàllu wàllum spiritualité mu nekk tamit dëkk boo xam nit ñi dañuy nekk ñu am diine loolu mooy mooy mooy projet moo mu mu tuddee ko la quête du bonheur des deux mondes. Mm-hmm. maanaam Matlabul Fawzayni maanaam parce que ci politique bi ñuy teg nit ki dangay ngay da ngay da ngay. wut la quête du bonheur des deux mondes. waaw des deux mondes maanaam fexe sa àdduna jàkk ak sa alaaxira jàkk mais nag mm-hmm. ñun problème bi ñu am naa sëñ wax na ko sànq mooy que ne. sëñ bi daf doon bind si arabe. Euh, dañu am benn rapport ak langue arabe boo xamante bi tey boo jëlee benn xaside Serigne Touba par exemple nga gis ñu bind ko arabe peut être yow da nga siy jël rek na si jàng pour barkeelu si. Mm-hmm. fekk na sëñ bi message am yëpp ci ay mbindam la ko def. Mm-hmm. tey jii boo jëloon par exemple euh, communisme wala nga jël le nazisme communisme benn livre bu ndaw la commencé lu manifeste. Mm-hmm. Euh, euh, boo xamante bu ndaw la mais après ay centaines de milliers de livres bind nañ ko si. boo jëlee boo jëlee le nazisme. Mein Kampf Hitler benn livre boo xam ne rayul. mais sëriñ bi li mu bind ñoom kenn bindul sax asaka ji. tey jii boo jëloon li ñuy wax ilhamu salaam. wax na ko sànq ci résistance bi ilhamu salaam mm-hmm. maanaam euh, sëriñ bi man ba mu koy liiree ak ma liir le peau noire masque blanc bu bu fanu wala ma liir le discours sur le colonialisme bu Aimé Césaire exactement parce que bi foofu maanaam lu névrosé lay waxal maanaam le mm-hmm. colonisé le complexe d'infériorité bi nekk ci le colonisé mm-hmm. sëñ bi moom lay condamné moom lay dénoncé dem ba ci biir naan oh vous miens réveillez-vous de vos de de, de l'ivresse du sommeil mm-hmm. maanaam maanaam maanaam maanaam yaa xam mi intabihum min sukraati naw mi maanaam mais yow boo koy jàng déggoo arabe pour yow peut-être leneen lay wax mais mais fekk ne yow complexe bi nekk ci ñun la coloniser moom lay moom lay wax moom lay waxal mm-hmm. wax caractère yi le coloniser la le complexe di am wax tamit ne ñii ngeen jàppe ay nit ñu supérieur supérieur ñu mm-hmm. ñii ngeen jàppe ñoo xamante bii ne dañoo dañ dañ leen raw ci xel raw ñu leen ci xel mhm. xel sëriñ bi dafa wax ne xel dafa xelu doomu aadama dafa mel ni xalu sawara mhm. xal mun ne loo ko gën di upp mhm. muy gën a boy mais loo ko lu ko ngelaw di gën a kii muy gën muy fay ndànk-ndànk xal booy liir di tàggatu sa xel day mujj ñaw ba mën nga créer wala nga bind loo xam day jaaxal ñëpp fekk na da nga ci tàggatu rek mm-hmm. mais kenn judduwaale wut noonu tubaab bi mm-hmm. judduwaale wuñ noonu mm-hmm. boo xoolee avion bi njëkk a créé mënul naaw diggante bu gàtt daanu mais ñuy dem di perfectionné wu tey ba bay bay bay def ay transverse atlantique ba ba tey avion yi def ay distance yu yàgg kon peut-être langue arabe bi barrière la suñ diggante ak mbindum sëriñ bi waaye message am ci wàllum économie sànq wax na ko euh, tey jii dañuy wax li ñuy wax financement participatif financement participatif tey dañuy wax ne euh, euh, waa Canada ñoom ñoo ko créé ay 1980 lañ ko daté 1992 94 or maanaam 1917 sëriñ bi bi muy defar jumaay njaareem mhm. dafa wax ne murit bu ne na joxe ab ab ab ab lim bi ñu ko joxee ba pare waaw mu ne mu mu wootewaat ne dama bëgg lépp lu ngeen di defeti ngeen koy defee nii mhm. ndax ku leen mënal dana leen sañal même bi muy dem ci géej gi bi muy demal maam bi muy bi muy jox maam Cerno njaboot gi daf ne ko daf ko bindal ay bayit ne ko wa fi zarai ruuxul xalqi in kunta aqilan wa fihi imaadu diini lil xorri wal abdi mm-hmm. maa ngi lay dénk mbay ndax mbay mooy loo xamante bi ne nga préserver sa dignité ak sa diine mm-hmm. da loolu tey te 1917 mais tey financement participatif peut-être anglais euh, canadien ñoom ñoo ko njëkk a conceptualiser ñoo ko njëkk a rationaliser bañ moomale leen ko waaye ñun ñoo leen ko njëkk pratiquer mhm. ndax ba ko sëñ bi digle 1917 ak 1994 sore na mhm. ca euh, raayu jaarim bi noonu lañ ko defee jumaay Tuubaa noonu lañ ko defee lépp réalisation yu murid def daanaka financement participatif lañ ko mhm. defee moo tax nag téere yu mel nii dañu war suñu ay pratique ñu koy conceptualiser. déjà même ñu tuddee ko sas. waaw mu di que xëy waaw. Ah, ku nekk ak sa sas. waaw kenn ku nekk ak mhm. it ma ci jéem a jéem a jéem góorgóorlu si li ma xam ku si néew ci mbindum sëñ bi ma jéem ko ma jéem ma jéem tamit def loolu ndaxte loolu mooy tax ñu ñu mën ko transmettre ñeneen. Mhm. ci pré ba pare préserver authenticité bi parce que bu fekkee oral ak la ñuy wax. wala wala wala wala wala boog ñu bàyyi ko ci euh, ci ci kii ci ci matière brute bi nga xam ne mm-hmm. matière brute am na ñoo xam ne amuñu accès boobu noonu mm-hmm. peut-être euh, mën na nekk problème léegi nag yow peut-être am nga bu fekkee am nga benn am sens maîtriser ñaari langues yi arabe ak français nga jéem a def benn benn benn effort intellectuel pour euh, expliquer ñeneen ñi ndaxte mm-hmm. tey Sénégal soxla na maanaam ñu ñu kii boo xoolee même fano ci les les les les derniers de la terre loolu la ñu doon loolu loolu loolu la ñu doon euh, reprocher ñu les mhm. Africains dafa wax ne bu fekkee ne colonisation c'est après imiter les Européens maanaam colonisation n'est pas pertinente mhm. parce que tey bu ñu amee bu ñu amee indépendance dañu war organiser suñu ay société suñu ay état selon suñu ay réalités socioculturelles mhm. selon suñu ay identité historique mais su fekkee ne pour imiter la après benn benn benn république wala benn laïcité wala benn système étatique boo xamante bi ne day imiter les Européens mënoon nañu rester kon dans les dans la ah, colonisation am loo xam da nga koy topp jusqu'au bout la rationalité mais tey ji te te à chaque fois réalité daf ñuy dab daf ñuy dab mm-hmm. ndax man tey boo gisee ñu ne ne Serigne si wax bu problème amee te ñu ne ñun dañu def république plus ñu def euh, laïcité la laïcité ne reconnaît pas la mm-hmm. religion ou bien mm-hmm. lu pouvoir religieux léegi kon bu fekkee ne problème dafa am mënuñu ko résoudre sur le plan euh, le pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire et parlementaire kon ya état état dafa faillir. Mm-hmm. ñu ne nañ jëli ñoo xam dañ leen excluroon ñu régler ko ba pare bëgg ko def comme obligation. obligation ñoom amuñu droit wa obligation wax. peut-être sur le plan social. Mm-hmm. am nañ am nañ influence sociale. Mm-hmm. am nañ tamit responsabilité sociale. mais sur le plan étatique état moo am. quelle que soit nature bu am si penc mi état moo am obligation résoudre ko mais warul dem jëli koo xamante bi dañ ko exclure ne ko faw wala nit ñi di ko wax loolu noonu waaye loolu lépp day dawaat suñu ay réalité lañu lañu lañu lañu maanaam li ñuy dund euh, ci wàllum politique méngoowul ak suñuy réalité ah méngoowut ak réalité socioculturelle day am day am day am paradoxe. moo tax baatu politique bi ci ci noonu laa bëggoon a njëkk leeral ñu xam ne politique au sens classique du terme. Mm-hmm. maanaam politique la boo xamante bi day may doomu aadama nature bi ko yàlla bindee muy sociabilité mu mën a dund dund bu neex bu dal mm. ba pare tamit ëllëg yombal xew mu mën a am texe ci kanamu mm. boromam mm.